aywa waxtaan la ñu euh, seq waxtaan la ñu seq ak way euh, wayjuru euh, gone gi nga xamante ni si euh, Mariem Ndiaye si lay wuyoo xam ngeen ne turam fi mu ne nii siiw na histoire bi nag mu ngi xewee diggante Parcelles Assainies ak Grand Médine ba mu dëkk moom xale bu jigéen bi da doon fréquenté ne ñu benn centre ca parcelle bu ñu tuddee universel foofee nag la lépp dooree ndax ay mbokkam dañu ne daal secte la boo xam ne dañoo jël gone gi détourné ko coow lu bëri xeex nañu ba jotaat seen doom moom gone gi di ngeen ko dégg ci document bi ndaka noonu wayjuram Abdoulaye Diop ak Mokhtar Talla Gaye ñoo fa doxantu. njaqare duggoon na ci famille si fii ci Grand Médine Marème si di xale bu am lu mat fukki at ak juróom-ñaar moom la benn secte këfoon xel mi mu réer ay mbokkam papaam Moussa si di ñu nettali ni mu demee. Marème Ndiaye si mu ngi juddu le 10 10 mois 2006 fii ci Grand Médine. mu dugg jardin génn jardin dem école jàng rek la xam léegi yàlla def mu dem ba euh, quatrième mu defee quatrième am benn xale bu jigéen mu xamanteel foofu kooku fexe ba détourné ko yóbbu ko ci yaayam présenté ko kii sama xarit la léegi yaay xale bu jigéen bi moom moo moom moo yóbbu mareem ci centre ba. centre bi universel. centre bi universel la tudd. nekk Parcelles Assainies. nekk Parcelles Assainies boo rombee église tuuti à droite foofu la nekk. léegi nag bi mu fa yóbboo mareem mareem yàgg na fa yàgg na fa trop léegi mareem dafa toll ci foo xam ne fii ñoom dañ ko bëgg a yéegal. léegi comme que man dem naa ba ba dute sama doom am ay comportement yoo xam ne neexuma ci laa commencé xaw sonal xale bi tuuti. yow yan comportement yan comportement nga gis ci Marème yoo xam ni euh, seetlu woo ko woon dëpp muy fréquenté centre ba. Euh, teel a xëy guddee wàcc nangootul liggéey ci kër gi. agresif boo wax ak mom ben ñaar rek mu dal sa kaw dem bay daw wa kër gi lolu ci ñaata weer la tollu ci ñaata semaine la toll ba nga seetloo ni sa dom changé na ak kañ nga découvrir ni ndeke ne centre bi moko ko ko comportement bi comportement bi man bi man ko constaté dal bi école ubbee nonu ba wara am à peu près ay 3 mois ci la am commencé am changement bi légui muy dem di dem mën a peut-être xëy na jàng bi xëy na jàng bi la rek ma bàyyi noonu léegi ba le 5 février bii passé am ku jigéen ku jigéen kii ma lay wax woo ma téléphone guddi un vendredi. mooy yaayu xaritam bi. Mm-hmm. ne ma papa ma ne ko naam mu ne ma xaw ma la de mais sa doom ak sama doom dañuy xamante muy Marème Ndiaye si ma ne ko waaw. mu ne ma nag dama bëggoon sama doom dafa am benn centre boo xam ne bii ñoo koy jox ay cours de renforcement ñoo koy euh, jox euh, kii ay fourniture école bu école ubbee boo fa defee un mais comme sa doom matalul un an duma ko ci boole mun a mën a boole mais su fekkee autorisé nga ma ko mu ko fa dugalee boo amee kii bu amee bu amee un léegi bu ko defee ñooñu ñoo koy jox ay fourniture

Euh, xaw leen am benn genre naïveté maanaam ngeen joxe seen doom rek bàyyi noonu euh, ba lu mel nii am ci. waaw loolu aussi dal nañu mais dootuma dalati lii leçon la lii leson la parce que man mosuma wóolu nit ah man mi nga gis ni suma wóolu nit loo nekk sama xarit loo nekk sama xarit. wóoluwuma la parce que gis nga nit nit dafa lëndëm nit dafa lëndëm pour mu trahir loolu yomb la te man boo ma trahiree daf may daf may sogee mm-hmm. te est-ce ni euh, sa xarit xaritu mareem bi moom la yaayam di yónni comme yaayam day fréquenter centre ba moom la yaayam di yónni pour muy maanaam entre guillemets recruter xale yi nga xam ni euh, dañoo bëgg détourner seen xel. waaw loolu la moom ndaw si moom du mun a dem ci kii ba du mun a dem ci école ba pour récupérer xale yi mais bu yónnee doomam doomam kotiyaay xale yi di waxtaan ak ñoom euh, rocci leen yóbbu leen kër ga moom mu mun a am accès ak xale yi mun a waxtaan ak ñoom dugal leen ci affaire ba yow buñ la dugalee ba nga am am benn niveau booy tollu dootoo mun dellu ginnaaw sa waajur bu lay waxal doo ko dégg parce que Marème fii la toog ñuy wax ak moom ne ko di nga bàyyi ñi wala doo leen bàyyi mu ne mënuma leen bàyyi. nga xam ne rek am na lu am. nga xam ne am na lu am ci laa jóg nag. ba nga jógee lan nga def. man bi ma jógee li ma def mooy dama yónni yaayam dama ne ko demal seetal ma Marème li muy jàng lan la yaayam dem fa bi yaayam demee foofu. gis eh, yegg waa ji ne ko xaaral dañuy kii dañuy. prière dañuy prière waaw. mu ne ko prière mu ne waaw mu ne moom affaire bi daf ko bouleversé après si supporter boppam mu dem kër sëram jege na foofu ci la woo magam magu Marème bi ne ko woowal say frère Marème fi mu nekk baaxul. sama doom bi jóge woo ressemblé ay frère am ñi dem fa il faisait dix-huit heures ñu ñëw pour récupérer ma waa ji ne ko dañuy def prière mu bugg forcer bunt bi gars yi téye ko parce que euh, dafa am ay garde corps dañu am ay garde corps fa lañ nekk fa lañ nekk fa lañ nekk boobu bu nekk dix-neuf heures léegi man ma wàcc ñëw toog fii laaj sama jabar ma ne ko ana xale yi mu xale yi kay Marème moo dem ci suba léegi nag dama demoon pour récupérer Marème fi ma yónni woon mais ñooñu nanguwuñu mais xale góor yi ñoo dem ma ne ko ah bon mënuma xaw ma nu ma ndogo jour boobu mooy euh, lundi xaw ma lu ma ndogo ma teg ndogo bi ndànk daal di sol samay daal dem bi ma demee moom fekk naa moom pasteur bi mu recevoir sama doom bi. dama fekk juste muy xuloog moom naan ko yow da nga réew parce que pourquoi ngay ñëw di forcer may def sama prière ngay forcer bunt bi may bi ma yegsee ma ne xale bi toogal ne mu toog ma jël wax ci nuyu ko mu fay ma ma ne ko dama bëgg man maa jur Mariam dama la ñaan ngir li ngay ñaan ni su fekkee gëm nga ko man ci weeru koor laa nekk maa ngi soog a nii dama la ñaan ngir yàlla ak yonent delloo ma sama doom ma yóbbu ko mu ne ma man sa doom indiwuma ko fi. boobu Marème mi ngi ci biir. boobu Marème mi ngi ci biir boobu dañ non boobu jël nañ ko ba tëj ko. maanaam séquestré ko ci biir. waaw. parce que yow dafa mel ni démb ngay soog a gisaat sa doom. démb laa ko soog waaw euh, wax ñu ci yan anam nga ko gisee ak euh, nan la demee ba nga gis ko parce que quand même lañ ko yóbbu mu mujjee ji section de recherche de la gendarmerie bi nekk ville wax ñu nan la demee ba mu yegg foofu. xam naa ni mu yeggee foofu mooy démb damaa woo samay mbokk euh, ma matar gi maa ngi koy sant di ko gërëm jàmm. bi mu déggee situation bi nelawul daf maa woo téléphone nee ma damay ñëw jàppale la parce que yow am na benn année boo xam ne danga maa jàppale mu daal di nee ma bu bay dem commissariat woo ma ma ñëw foo taxaw ma taxaw comme que kilifa la ma jël lépp jébbal ko am naa ay kilifa de mais comme que moom kilifa la. ma jël ko jébbal ko féete ci ginnaawam jiital ko ànd ak samay mbokk ñu dem commissariat bi ñu demee commissariat ful bi ñu àndal loolu moo tax xam naa ñoom ñoom du ñàkk ci ñoom ñoo xam ne ñi dañuy infiltrer nit ñi pour xam lu xew affaire bi day nekk patate soo ci seen loxo. est-ce que répercuté ci njàngam. dafa yàq jàng bi dafa yàq jàng bi complètement parce que li mu doon am lu mu amoon daaw. moo ëpp foofu li mu am ren te dafa dem sax ba yàq comme kaye yi mu war a normal yi mu war a di bindee ay leçon yooyu dem na ba bindatul ay leçon seen affaire yooyu rek lay bind. yooyu rek lay bind. maa ngi maa ngi jot jot nañ ci Marème. mu ngi fii ci kër gi. xale bii nag. di Marème Ndiaye Sy mujj naa feeñ te nee na daal ragal moo ko jàppoon ba mu daw ay mbokkam. waaw Marème euh, euh, lan nga yëg sa yaram ba nga ñëwaatee gis say parents euh, say mbokk yëpp taxaw jaaxle woon nga ñëw ñépp si ñu gis la lan nga yëg. sa famille manqué nga woon nga leen sa papa sonn na sa yaay sonn na di la wër nan la la def. dama choqué parce que foogeewuma ko woon foogeewuma woon ni que ñoom dinañ wër à ce point c'est pour cela que ça m'a yow histoire bi ni mu demee ci yow nan nan nan la la dikkee nga jékki-jékki ñu bëgg la gis euh, dan la séquestré woon ci univers bi foofu wala qu'est-ce qui s'est passé. man maa daw. parce que j'avais peur sama grand frère bi ñu ma door yow léegi ma am fekk sama yaram bi yëpp yàqu donc ma. je ne vais pas rester ici parce que je croyais qu'on va me tuer. C'est pour cela que je couris en sortant de la maison. Mais nous, ça quatre mois qu'elle qu'il pas mais ma Mais yangi Jang, euh, ngi euh, classe quatrième sa papa possible, na ni sa note est-ce que li ngay fréquenter centre bi également indilu le problème moi je me dis non. parce que déjà man dama faible si quelques matières te ñoom dañ may jàppale si quelques matières je me dis que non parce que avant man classe scientifique le mieux, mais mon espagnol là, bëggoon def. ci quatrième école. Ouais. Mm yow dañ lay def loo euh, dañ lay def loo maths science physique au lieu de espagnol wala qu'est-ce qu'il y a. Euh, ñun dañuy dem bloc science scientifique moo tax ñun la les scientifiques suñu école comme par exemple les meilleurs de l'école mais man espagnol laa bëggoon def principal bi nee na sama niveau moo ëpp donc man mënuma def espagnol té man tam bëgguma woon nek ci classe bi ma ñëw waaw mais euh, say parents bëggu ñu nga dam ci centre bi est ce que quelque part do ko bàyyi y a pas problème hmm. parce que sa papa ak sa yaay jaxlé nañu trop sa comportement nee nañu da nga jékki-jékki woon agressif doo wax ak kenn ci kër gi qu'est ce qui s'est passé non, c'est pas dans ce cadre. mais pourtant agressé mais mais normal nekat marem bi waa koñ bi xamoon bi waa kër gi xamoon affaire yi est ce que di ci tirer leçon nga li sa yi wax nga ko oui je vais le faire parce que man gis naa ni am nga envie sortir euh, sa papa ci situation euh, bi muy jànkoonteel sa papa mi ngi lu mi ngi leen di dimbali mu ngi def lu mu mën dooleem yamul mais yow am nga intention am nga ambition pour jàng am nga ambition pour génne ko ci situation bi mun est-ce que mënoo concentré wu ci sa jàng rek nga yem ci loolu. ah man sama rêve man loolu man samay rêve mooy que ma dem ba génne samay parents si situation bii nii ma sauver honneur de famille bi man c' est ça mon rêve pour cela que loo ma wax lu dul jàng bi du ma ci dem boo tax su damay sacrifier des fois may dem ay cours soir pour rek ñu jàppale ma parce Je veux sauver de la famille et je sais que je vais le sauver. Merci beaucoup à Mortal Abdoulaye Diop pour ce magnifique document Euh, mu soxal nag euh, li nga xamante ne si. Euh, waaw taw bi dafa mel ni ñëw na dem ci taw bi kon cher. je pense que ñi ngi ci ligne bi ak waa ANACIM. Hmm. Mame Ngor Ndiaye nekk responsable. dafa mel ne àddoogul yembagul. yembagul xam naa ci kanam. waaw waaw kon xam naa kon ci kanam rek. ci kanam waaw expliqué ñu vraiment taw yi lan lu waral taw bi effectivement. mais mais laataa loolu Malick mooy li ma doon wax sànq ñu félicité Mortal quand même ak Abdoulaye Diop ci euh, le magnifique document bi ñu def euh, ci gune gu jigéen googu nga xam ne euh, siiw na ci réseaux sociaux yi moom ak way juróom quand même ñu né ben secte dal ñoko détourné won moy lo xamné quand même juróom na coow lu rëy ni ko waxé ci réseaux sociaux yi. waaw jaajëfal Mortal ak. reportage bi nga xamné def nañ ko. mais aussi gërem famille bi. Mm-hmm parce que aussi lu mel nii bu ils ont pris leur euh, courage à deux mains mhm. avancé à visage découvert wax ci pour que xëy na victime bañ am mhm. parce que xalé bi boko ko muy wax nga xamné elle est traumatisée mhm. elle est entre le marteau et l'enclume marteau bi mooy euh, tey bugul ay param buggul lu len metti mais ñëla def nañ ci bopam lo nga ni

bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko teg pression bu métti. Hmm. nañu ko gën a comprendre déglu ko ubbeeku waxtaan ak moom pour que mu dellu si hmm. parce que la fi elle est intelligente boo ko déggee ngay wax ku muus la ku intelligente la. Hmm. mais Marème euh, da nga war a xam ne ci famille bu baax nga bokk si saawaane ci famille bu baax nga bokk jullit nga. ñu yar la ci farata si yàlla ak ci sunnas Muhammad teg la ci yoonu siraatal mustaqim sa ay waajur am yaakaar ci yow kon lépp lu nga xamante ni nii tey moom nga jàppoon jëmale ko ci wàllu secte boobu nanga ko teg ci suuf te nga déglu sa ay waajur ndax lu baax rek lañ la bëggal mm-hmm. bëgg nga tekki bëgg nga euh, nekk jigéen bu nga xam ne ëllëg comme ni nga ko waxee mhm. da ngay euh, dimbali sa ay wayjur mhm. te loolu soo ko bëggee da ngay wéy ci seen ndigal bàyyi seen ay tere mhm. loolu nga xam ne foofu nga dugal lépp lu ñu dugal sa xel jëm ko ci génne concentré wu ci sa jàng déglu sa ay wayjur waajur yi aussi nañu ko déglu parce que la besoin d'être écouté te suivi psychologique bi ñu defal ko ko te lu mel nii ñu gën ci góorgóorlu parce que ces genre de secte là euh, Fati euh, dañu xaw a doy waar parce que fi ñuy implanté wu d' abord dañ koy seet. Mhm. milieu bi. Mhm. dafa am solo milieu la bu nga xamante ni en général environnement bi ñu fa nekk c' est des gens un peu diminués. Mhm. de cible bi dafay xaw a facile. donc dañuy bëgg di la miroiteloo ay yëf yu nga xamante ni pour dugal la ci seen biir dafay xaw a yomb dañuy fekk nga xam ne jàppoo ci dara. Euh, àdduna sonn nga ci ñu disons le xëcc ci yow ci ñom le de yenn yi euh, ba récupérer la mm-hmm. aussi ñu gis ni intelligent ak yu mel comme mu intelligente ñu la jël la lavage de cerveau le ci sen bir le naka ngay mujjé fati moy mm-hmm. fekk leen ci lu ñu ba yor ay flyers taxaw ci yor micro di di di pour nit ñi ñëw ci yow li mm-hmm. c'est extrêmement dangereux on liberté de culte dafa am ci mi ku mu neex mën nga ubbi sa jàkka mën nga ubbi sa juma mën nga ubbi sa église mën nga ubbi sa sa temple def euh, pour wéyal sa gëm-gëm ak sa diiné mais de là aussi à dem di jël ay doomu jàmbur di leen détourner ça aussi ça doit cesser parce que buñ ci jappul ëlëk suñu doomi mën nañ dugg ci lu nga xamni duñu xam fu muy mujjé wala fu muy mujjé du neex mhm. cheikh

xamante ni jamono dafa tëradi léegi këf gone yi yomb parents yi ñoom ñooy war a njëkk a nekk ñi nga xamante ni quand même ñoo war a nekk bouclier ngir aar yooyu gone ngir ñu mën a épanouir ci famille bi ci kër yi te nag li ko mën a indi moom moo xew ci jamono bañ a a laal ci wàllu këf gi nga xamante ne ñu ngi leen këf ci wàllu parce que yu ci bëri indi pauvreté daf koy indi indi parce que ñenn ñi nga xamante ne dañ fee nekk di sos yenn yi dañu proposer xale yi ñu am xaalis wala yu ni mel

yóbbaale boobu changement contexte mooy ñu wax ak xale yi. Mhm. di diisoo ak ñoom di bañ am tabu suñ diggante ak suñ ay doom. Mhm. parce que foofu la jamono toll. Mhm. foofu la jamono toll merci beaucoup Chérif ak Malick euh, Thiandoum jaajëfalaat encore Mortala Gueye ak Abdoulaye Diop ci document boobu bi lee euh, Daouda Mine yegg na ci plateau bi Daouda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fati. Eh, di nuyu Malick eh, Chérif ak. Eh, mon ami. di nuyu téléspectateurs yi. Marcel di nuyu téléspectateurs yi. Hmm. di ñaan yàlla gën ni lépp luñ fi wax dina jëriñ askan bi très bien j'espère que Chérif am na carte de presse. waaw léegi am na. <laughs> <laughs> ah. non eh, non répondre à la question de Malick. ñu dalal daaw de. jaajëf waaw dama waroon poser question. yow yëpp ak Marcel.